rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi murid di ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila si ahmadul murtada ibnu sëriñ saaliw di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba naalim am ngir liggéeyal cheikhul xadim mu am ci lu kawe njortam te ànd kook mbokki taalibe yépp ñi ngi leen di ziare bu baax di leen ndokkeel ci bis bi di indi kàddu yu gàtt rekk yoo xam ne eh, ñaar ñu tedd ñii ci sama wet ñoo ko war a def di Cheikh Mouhamadul Bachir Faye nga xam ni mooy jëwrinu Cheikh Mouhamadul Mortala jiite mbooleem daayira yi ak Cheikh sëriñ maam Cheikh Fall mi nga xam ne mooy ki nga xam mooy saytul njàngam alquran mi ak njàngum xam-xam mi ci mbooleem daaray sëriñ bi di sët ci Cheikh maam Cheikh Rafal waaye di sët ci Cheikh Mohamadul Fadal kon ñaar ñu tedd ñooñu defe naa ni présentation bi du gudd bokki taalibe yi miin nañ leen ci ëtt bi ñu jukki woon nag ab ponk boo xam ni mën nañ ni tey bis bu tëdd bii nga xam ni moo ñu fi dajale euh, lam am ci boroomam loolu moo ko ko may te mooy itte ju kawe itte ju kawe mooy li nga xam ni saa su ko doomu aadama bi amee lépp lu muy sàkku ci àddina suñ boroom mën na ko caa dimbali ba mu am ko ndax cheikhul xadim radiallahu anhu <clears throat> wax nañ ne bi ko bi mu duggee xalwatu ci daarul xuddus ba yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu ko ba muy sàkku cëram bu rëy boobee te mooy bokk ci shuhadaa yi ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tuur seen deret ba sàkkoo càkkuteef lool wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko yow day da dangay sama waay te cër bii ngay sàkku rëy lool waaye képp ku ma ko masaana sàkku su demee ba ci biir rek soo moytuwul dina yuqat te ñaare nitu yàlla yi suñ dee wut mbir seen digganteek suñ boroom suñ yokkatee rek euh, ay mbir mën na leen mën na leen caa fekk waaye wax nañ ni Cheikhul Khadim daf ni ko li ma bëgg xam mooy ndax ruux gi àttan na ko su ko ruux gi àttanee rek jëmm ji moom attan na ko kon loolu itte ju kawe la ci liggéey boobu lay dox di dox ba suñ borom faye ko lii mu ko faye tey mooy bis bii ñuy màggal kon itte ju kawe eh, mooy loo xam ni nit ku nekk war na ko am kon ponk boobu lañ jukki tey xam naa ni du gudd ndax waxtu wi ni mu demee waaye dafa dul mën a ñàkk ngir bépp murit bu ñëw ci màggal am loo yóbbaale loo xam ne dina la jariñ dëgg la bernde am na déglu xasida am na jaamu yàlla ak lépp baax na waaye faw it murit bi ñu soññ ko ci loo xam ne dana ko mën jariñ àdduna ak alaaxira loolu mënuta ñàkk ci màggal moo taxoon ñu jukki ponk boobu di euh, yitte ju kawe sëñ Mouhamadul Bachir war ñu cee indil ak sëriñ maam Cheikh kon ñu ngi sàkku mbooloo mi ak bokki taalibe yi képp kuy dégg sama kàddu ngeen ñëw fii ci bâche bi te teewlu leen ndax ab tënk lay doon rek te jàpp naa ne dana doon tënk boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci mën a jëlee njariñ lu ñu mën a jariñ àdduna ak àllaaxira kon dañuy njëkk a jox sëñ Bachir jëwrin moo indil ñu ci itte ju kawe su noppee ñu doog a jox sëñ Maam Cheikh wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di tàmbulee ci sunu sang sunu sëriñ cheikh muhammadul murtada ñaan yàlla sunu boroom mu sàmm ko aar ko te yàggal ko fi te mottalil ko ab liggéeyam te ñu ànd kook moom eh, di leen ndokkeel it ci bis bu tedd bi di fukki fan ak juróom-ñett ci safar nga xam ne cheikhul xadim radiallahu taala an moo ko sàkku ci ñun ñu ko ci santale sunu boroom bu yegseetee eh, loolu rekk yaakaar naa suñ jàngoon taarix boobu rekk dana nekk misaalu li ñu war a waxtaane mooy yitte ju kawe ndax eh, fi mu ñëwee ak ñu njëkk ña fañ nekkoon daanaka jamonoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabatul kiram diggante bi ni soree ku fa teg sa bët jàpp ne mën nga fa yegg wala nga jàpp ne mën nga am lu raw loole sax ndax mayi yàlla yi du jeex te yàlla mi daan joxe loole moo fi nekk ak fii mu ci mujj ak lim ci am li ci rogalaat ñu koy jariñoo ak liñ ci njortu lépp ñu xam ne kon loolu doy na sëkk ci misaalum yitte ju kawe kon yitte ju kawe ak dogu la gu ànd ak muñ ndax alxuraan wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na muñ ni ko yonente yi ulul azmi yi defee fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñ ndax foofu tudd nañ baatu muñ tudd baatu azima mu mel ni kon ñoom ñaar boo leen boolee mën nañoo jur li ñuy tuddee yitte wala yitte kon ku ko bëgg kon faaw da am ak muñ faaw da ngay am ak dogu ci li ngay def détermination bu mag ngay àndal ngir mën a am li nga bëgg ci àdduna bu dee ci bu ñu wàccee loolu ba ci ñun sunu jotaay yii nga xam ne jotaayu tarbiya la aku muritu ngir bëgg ngërëmal yàlla di ko jaare ci cheikhul xadim di ko jaare ci njabootam gi ku mel ni sunu kër cheikh mouhamadul murtada li nga xam ne moo ci jiitu ci yitte mooy farata ndax fawu doomu aadama xam farata ak li dul farata farata mooy yitte piir ndax leneen lu jullit bi def te du farata ci moom loola li ñu tudde ay ashiya sanawiya maanaam lu secondaire la mën naa am njariñ waaye njariñ la jëmut ci yàlla mën naa am ci boppam rek la jëm wala ci àdduna rek la jëm loola du yitte dëgg-dëgg moo tax jël sa àdduna sépp euh, jox ko sa sa dund gépp jox ko àdduna kese loolu du yitte nit ñi nag mën nañ koo jaawale mën nañoo gis ku farlu lool ku mën a dajale koom lool walla kuy kuy njaxlaf daal ci lu ne waaye mbiram digganteem ak boroomam da ko woyofal bu ñuy joxe misaal ci yitte ci lislaam kenn du joxe kooku misaal maanaam ndax dafa jël àddunaam def ko muy léppam moo tax booy xool ci ñaani nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon dañ daan wax ne euh, wala tajali dunia akbara hammina maanaam bul jël àdduna rek def ko sunu yitte jépp ndax ñooñu xamoon nañ ne àdduna am na solo ndax yowmal xiyaamit lañ fay séentu fii lañ koy faggoo kon fii am na solo waaye jël sa yitte jëpp def ko àdduna loolu ci lislaam du yitte moo tax nañu xalaat sunu boroom ci li ñuy def loolu li mu ñu jural ci tënk mooy kon li njëkk a war ci ab jullit waxuma la taalube murit taalube murit jullit la ba noppi am leneen lu mu bëgg loo xam ne daa gën a jafeeti kon faw taxsilu zaadihi minal imaan faw mu xool digganteem ak boroomam ci wàllu ngëm yàlla kooku kon yitte la ndax nit du tañax tañaxi maanaam li muy def da ko war a xam ràññee ko bu baax a baax loolu moo tax e, li ñuy tuddee ngëm nekk mbirum xol ndax doyut ci làmmiñ ndax làmmiñ mën na koo wax waaye mënu koo xam xoola ko mën a xam ak xel ñoo ko mën a fas moo tax loolu sax lislaam sartu la ci yéene nga wax ko ci ay baat ndax boo ko dugalee ci sa xol ba fas ko rek fasu na jàpp na loolu wàllu ngëm yàlla la kon fi mu ne nii li nga xam ne yitte la dëgg-dëgg ci ab murit mooy mu gëstu digganteem ak boroomam moo tax sëñ Touba radiyallahu taala anhu moom ñëwee di di beesal diinun siwa islaamihi la yuhmad inda al ilahi wa bihi nu maanaam daa am yéeney beesal diiney lislaam waaye waxu ko rek yem ci waaye yitte dëgg-dëgg la ci def mooy taalif téere yoo xam ne njaboot gi danañ ko mën a jàng liñ soxla seen diggante ak seen borom ñu mën ko cee am bu fekkee ci wàllu tawxiit mu taalif lu day sëkk ci wàllu tawxiid ku dem ci téere yi soxla dara ci tasawudu sixaar wala tasawudu shubaan li nga soxla sa diggante ak sunu borom ci wàllu ngëm gi nga war a gëm yàlla gan xeetu ngëm lay doon ni nga war a gëmee malaaka yi ni nga war a gëmee yonente yi ni nga war a gëmee yowmal xiyaam ni nga war a gëmee dogalu sunu boroom yi moo xam dogal bi dafa ñëw dëppook ni nga ko bëggee woon wala dafa ñëw dëppoog noo ko xaare wutoon ban pas-pas nga ci war a am léegi loolu soo ko ràññeewul ne jullit nga loolu day day day day mm, mànkil ak njullite mànkil ak njullite nag firiwul day génne nit ci diine ndax al islaamu dañu ne ci téere tawxiid yi yazidu wa yanqus limaan adama juum al imaan ngëm day day yokk léeg-léeg léeg-léeg day wàññi ko loo koy gën a misaal rek mooy doomu aadama léeg-léeg day toll ci xaal mu jekki-jekki lam doon yëg yëgatu ko mu mel ni kon loola boo ko waxoon a nga xaal ji du ko mën a teg baaraam doonul loo xam ne luñ mën a laal la waaye yëg-yëg lay doon kon loola di def loolu ci biiram léeg-léeg mu daj ko xam ne lii mi ngi ànd ak moom léeg-léeg du ko gisati loolu kon day yokk di wàññiku kon doomu aadama ju ci ne war naa gëstu loolu diggante ma boroom loolu yitte la ci ab murit mu xam ko moo tax sëriñ bi indi ci ay tontu yu leer taalif ci téere yoo xam ne kenn du ci am aw lay sa digganteek moom mukk ndax jox na la ci lim la ci war a jox képp koo xam ne Eh, ah, kenn amu ci ngànt ku ko bëgg a xam rek da nga ko mën a xam kon bu fekkee ne dañoo nekk ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Moutada yor ay daayira ndax wax it day am solo xam nga xeetu conférence su classique xam ne rek yëkkateeg wàcce lay doon waaye ñun li ñuy wax dañ ko namm rek def contextualiser ko moo nga xam ne ñun dañ koy mën a jël rek daal di koy jariñoo ci saa si nga xam ne dañoo yor ay daayira yoo xam ne ay magan ci ay ñu digg doomoon ci ay tuut tànkan ci kon daayira yooyu war nañoo xam lan mooy farata ak lan moo dul farata lan mooy yitte ci ab murit yitte ci ab murit mooy ci biir lislaam la ne ba noppi di sàkku yoonu iraada kon am na lu gàllu ci kawam lu diis la cay njëkk mooy mu lijjanti wàllu imaanam wàllu ngëmam bu koy xoolit mu xoole ko ci li ko gën a jege mooy liñ ko jox mooy téere yi nga xam ne sëriñ bi bindal na ko ko jox ko ko mu mën koo jariñoo mooy loo xam ne segg nañ ko ba doo ci fekk ay nee nañ ay werante ndax li ëpp ci fànn woowu ñi ko jàng te xóotal ci am na nooy demee sax ba mu mujj yàq sa pas-pas li ngay gëm dootu leer ci yow ci lu ci nekk nga bëgg koo sababal bëgg koo delloo ba ci njobbaxtal di ko wax nit ki mu réeral ko moo tax boo xoolee téere yi nga xam ne sëriñ bi bind na ko ci fànn boobu da koy leeral ba mu gën a leer naññ woyofal ko ba nit ki lu mage mage lu tuuti tuuti mën koo jariñoo sëriñ bi it sàmmoonte ci buy wax ak ndaw ñi yan waxin lay jëfandikoo lu mel ni tasawudu sixaar ay ndaw a ko tax a jóg tasawudu shubaan ñi nga xam ne weesu nañ ati ndaw ndaw lool xaw a eh, yëkkatiku ci ay at nga xam ne daanaka da ngay xool ñaari téere yi nuroo nga defee ne benn lañ waaye dafa am lu ñuy tuddee al furuqul ya sëriñ bi mi ngi sàmmonteeg maanaam ati kiy jàng ni mu toll ndax ndax ni mu toll noonu la xelam di toll moo tax bu waxee ak moom ci anam wi wax ak moom ci anam wële yittee dina yegg ba ci nga xool ñaari téere yooyu ñu nuroo am foo toll ci ay at daal di dem jàngi masalan tazawudu sigaar mën naa am yow boo jàngoon tasawudu shubaan moo ëpp doole ci yow dem jàngi tasawudu sixaar ndax kam doon waxal ci sixaar bokkut ak yow mi nga xam ne génn nga ci sixaar ci shubaan nga bokk loolu lépp yitte la yoo xam ne sëriñ bi jox nañu ko waaye waruñu ko jël jëlum ku xam ne du gis du xool du càmbar lu ci nekk dañ ko war a xool li tax mu tudde ko nàngam kon lool yi am na firnde am na lu mu war a jëriñ ñu jéem koo xool di ci dox ci daara yi dégg nga ñi nga xam ne ñoo yayoo njàngum ndaw moomu ñu jàngal leen loolu ñu diggu doomu ñu sàmmonteeg loolu bu ñu demee ba weesu foofu it ñu jël téere boo xam ne méngoo na ak ñoom ci fànn boobu jàngal leen ko kon yitte la bu baax ci lislaam amatan lu cadre général waaye ñun ci sunu bopp nga xam ne si contexte bi ñu nekk ñun ñoo ko yittewoo dëgg-dëgg ndax ay ndawang ci daara yi yittewoo ko war koo xam te buñ ko xamee seen mbir yëpp dana jag ndax sëriñ bi jox la leen ci li li leen ciy jariñ naka noonu buñ jógee ci ngëm buñ tàbbee ci lislaam ndax xam nga lislaam baat la boo xam ne euh, euh, dugalaale na sax ngëm ndax képp ku ne jullit laa dañuy jàpp ne gëm nga képp ku ne gëm naa it ci biir lislaam dañuy jàpp ne yaa ngi doxal lislaam ci diggante julli loolu lislaam lañ koy dugal woor ci biir lislaam lañ koy dugal natt azaka ci biir lislaam lañ koy dugal aj màkka ci biir lislaam lañ koy dugal nga xam ne ngëm dañ koo ber nii mooy gëm yàlla ak malaaka yeeg yonente yeeg dogal yi loolu mooy buntu ngëm waaye lislaam nag ci jëmmam moom da ngay génn ngëm tàmbulee def ay pratique lu mel ni julli lu mel ni woor lu mel ni natt azaka lu mel ni aj màkka loolu itam dafa jar a xam ba nga xam ne danga gis mag moo xam ne boo ko waxoon luy tàqale diggante ngëm ak lislaam rek du ko mën a xam kon dafa mel ni am na fu ñu duggantee ñoom ñaar waaye boo ci bëggee am foo ci yegg dangay xam lii fii la tàmbulee yam fii lii it fii la tàmbulee yam fii ci seen biir it loolu ku ko def jullit nga waaye lislaam dafa bëgg lu idéalisme lu gën a rafet lu gën a taaru mu daal di indi buntu ihsaan ndax yonente eh, sa alayhi wa sallam bi jibril alayhi salaam ñëwee di ko laaj nga xam ne melow doomu aadama la indi ci xadis bu ñu xadisu daxiyatil kalabi melow doomu aadama la jibril indi waaye li jaaxal ñi toogoon ak yonente bi gisuñu ko mu am melokaanu ku tukki woon bopp bi amul pënd yére yi tilimul ndax booba désert bi ku ciy dox sa yére daa war a tilim sa bopp daa war a am nu mel ñu gis ko xamuñu lu mu doon mu jël ay bëti woomam teg ko ci bëti woomu yonente bi salaa sallam ne ko yonente bi yow yonente yàlla bi dama lay laaj luy ngëm yonente bi daat ko ciy tontu ni ma ko waxee woon léegi dama lay laaj luy lislaam yonente bi tontu ko si mu ñëwee ci rafetal mu ne ko luy rafetal mu ne ko da ngay jaamu yàlla ba mel ni yàlla ngi lay gis ba ba mel ni yaa ngi koy gis bu la boo defee ne gisu la it mi ngi lay gis maanaam an taabudallah ka annaka taraahu fa in lam takun fa huwa yaraak boo ko gisutit fasal ci sa xol ne moom mi ngi lay gis loolu mooy yeggalee ñaar yële mooy tax doomu aadama bi ci wéet ak wéttaliku lu yàlla gërëm rek lay bëgg a def ci lay ci lay nekk yooyu nag soo ko boolee yaa ngi ci biir lislaam bu ko defee yii nii li muy noru lu simple waaye daara yi yitte woo nañ ko ñu daal ñu nañ ko jàng ndax bu ñuy wax yitte bu ñu bañ koo sori lool waaye ñu teg ko ci cadre bi nga xam ne ñun moom lañ yitte woo dëgg-dëgg contextualiser ko mooy fi ñu toll nii kon loolu yitte la ñu ñu ñu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax suñu jógee ci e, xeetu yitte yooyu ñu ñëw ci e, mbirum dund sax mbirum dund it yàlla sunu borom bi mu bindee doomu aadama da ko mooñaale ak am xel xel nag day e, jariñoo ko rek lay jariñ maanaam àdduna des ko war a tabax dañ ko war a defar ba mu jàppandi ndax yàlla sunu borom moom dafa ne dama leen fee bàcce waaye dama daa sàkku ñu tabax suuf si loolu kenn du téye boppam kon ci defar defar bi njëkk ci defar tabax suuf mooy nga defar xel defar doomu aadama ba jàppandi ba nga xam ne euh, loo foo bëgg a yegg ak moom mu yegg fa ci diggante bu gàtt ndax suñ koy jàngale nii ci misaal mën nañoo indi sax loo xam ne ci misaal ñooñu xëy na duñu ay jullit waaye ci defar gi ñu leen defar ñu mën a sottal mbir lañ ci diggante bu gàtt boo xam ne mën naa am ñuy tuddoo jullit eggaguñ ci sax ci misaal boo xoolee lu mel ni japonais yi nga xool seen guerre mondiale bi euh, maanaam biñ leen dóoree Hiroshima Nagasaki ci diggante biñ tabaxaat Japon mu mel nii daanaka demi siècle mu egg fi mu egg soo xoolee Allemagne ci misaal ni mu meloon France deuxième guerre mondiale ci diggante bu gàtt fanweeri at ñeent fukki at mu melaat ni mel nii am na dëkk yoo xam ne ñaata at lañ dund waaye xëy na xanaa seen yitte dafa kawewul moo tax mënuñoo def yenn yi walla xel dafa tolloowul dama am benn xalaatkat nee na li ko jaaxal su fekkoon ne ñiy jóge fii di dem fen beneen yeneeni dëkk boobu da doon joxe misaal ci ñiy jël géej gi di tukki di dem yeneeni dëkk ngir bëgg dund bu gën a jàppandi nee na loolu moom xelam dina ko nangu su fekkoon ne suñ demee foofa dañ fay fekk yeneen mbindeef yu dul doomu aadama waaye ginnaaw ñu mel ni ñun lañ fay fekk li tax loola mënuñu koo def fii kon loolu yitte la yitte ju kawe sëriñ bi sëñ Touba jàngal nañu ko ci anam gune ñun taalibe yi jàmbaar lañ xam naa ne ndax bari na luñ ci def te dinaa ci ñëw rek ci ay misaal daaneele ko waaye nañ ko gën a yokk ndax àdduna dégg nga kenn xamul fu mu yem te yàlla lum sàkku nañ ko def rek kémta lay kàttan organiser sunu temps organiser sunu euh, lépp sunu jamono loolu bokk na ci màndarga yi nga xam ne day yitte la ba tey ndax si misaal ñun sëriñ bi lim ñu ko jàngale nga xam ne du ay wax danga koy làmb daj ko ci njaareem moo ci jiitu njaareem ay 1916 17 dégg nga jumaa yi njaareem yitte ji ko taxawal xam nga ne loolu dégg nga ci jamono jooja jëm mi dëkk ci dëkk yi am xel mi rek moo njëkk a xelum lii daa war a am loolu ku ko ku ko xalaatoon architecte nga boo xam ne soo ko jaayee da ngaa war a am ay milliards dañ lay fay maanaam ñiy jaay plan yi dañ leen di fay xaalis te tabaxuñ dara jëm mi xam ne lii dafa war a am ci gox bi dégg nga ak fi àdduna toll ak niñ koy xoole loolu kon koom dëgg la kon war nañoo jëfandikoo sunu yitte bu baax jëmale ko ci wet yooyu bi fi sëñ bi jógee ngir wane ne ñim ko njëkk a jox mokkal nañ ko xam nañ ci lu bari sëñ Modou Moustapha ni mu ko jëmale ci raay bi jële ko njaareem indi ko tuubaa ci am lu mu bëgg xam ne lii moo ko mën a jàppandal mu dogu rek ba def ko ndax boobu loolu it boo ko waxoon ñu bari ci doomu aadama yi munta nekk la ñuy wax ndax tubaab yi nga xam ne sax ñoom ci wàllu yitte ci àdduna xëy na àdduna laa wax ñoom ci wàllu yitte ci àdduna ñu bëri defe nañ ne yor nañ ko ñoom it ndëgg sërëx sax lañ doon jéem a def di ko gàllankoor ne nañ ko tegal lii buñ ko tegalee du ko mën a tëb kon dana bàyyi projet bi muy wax waaye mu sut leen fawxa leen ci ndimbalu suñ borom fexe ba taxawal kon kooku yit war nañ koo jàng mbind moom ba loolu weesoo jumaay ji mag ji jumaay ju mag ji gis nga ni mu demee ci wàllu yitte waaye sëñ Modou Moustapha bi sëriñ Mouhamadul Fadal ñëwee ba màggalu Touba daawuñu ko defee nii waaye xel day koy jariñoo tey jii rek e, liir naa ci benn revue boo xam ne ci jamono sëñ fàllu bi mu toogee xalaat ne màggal gi na taalibe yëpp yi daje Touba ndax daje gi dafa bokk ci li war a participer ci defar jumaay ji ndax àddi yee dana fa rot danañ am xaal danañ jege sëñ bi dégg nga dina am tàngoor woo xam ne dana leen roof te buñ toogee fañ toog di fa màggal du ko def ci ñoom waaye màggal fépp lañ ko daan defee waaye loolu stratégie la woo xam ne gis nga fi mu indi màggal gi tey gis nga ni mu mën a yenoo projet yoon wi ak fi mu ko mën a yóbbu kon loolu tamit yitte ju kawe la bu ñu jógee ci histoire yooyu xëy na yoonu murit foo dem rek mën a tudd loolu waaye li ñëpp bokkaat Masaalikul naan ci Dakar ci contexte bi ñu nekk ci wàllu économie ak tamit la ni mel nga jël lu mat daanaka ñaar fukki milliards ci ay dërëm dërëm ay ñaar fukk ay téeméer ba mën cee taxawal projet boo xam ne dañ koy wax ay milliards ñëpp gis ci seen bopp loolu wane na aw yoon kon war nañoo gën a laxasaayu euh, ñun taalibe yi xam ne eh, ñi ngi def dara waaye waaye waaye yitte du doy du doy ci daaneel ñu am euh, li ñuy gàllankoor mooy ñun day nit ku ñuul ñi bëri na ci seen seen seen gàllankoor nit ku ñuul li ci ëpp yitte ju yitte ju ju des la maanaam xeetu théorie théorie la ñu gën a mën ci pratique te Serigne Touba moom bi mu ñuy jàngal dana yonente bi bi mu ne ko bi asxaabaka bil himmati wala tu rabbihim bi darsi faqat na nga jàngal taalibe yi yitte maanaam yéegaleel seen xaal ci yitte waaye bu leen jàngalati ay téere kese ndax njàngaleem téere dafay yàgg fi lañ ko fekk sañ Touba fi la ko fekk nit ñi daan jàng alxuraan di ko mokkal daan jàng téere xam-xam yi daan ko sax jàngale waaye taxutoon ñu mën dara waaye moom sëñ Touba bi mu ñëwee di tajdid al amalu al amalu bil maalumi baat boobu maanaam jëfe li nga xam gis nga jëfe li nga xam moo ëpp upp ay téere yàlla nee na borom téere yu bari yoo xam ne du ci jëfe dara moo mbaam muñ sëf ñoo yem loolu kon joxe wan na ci misaal waaye mën naa am nit ñi seen tafsir da cee yeggutoon wala ñu mën koo xam waaye sëñ Tuubaa bi mu ñëwee wu newul fa sax di ko wax da koo jëf rek al amalu bil maalum nañ jëfe liñ xam loolu mooy rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat moo tax nga mën a gis nit koo xam ne li muy jàng sax du bari waaye nit ku jàppandi lay doon ndax li muy jëf lépp yittee koy lal nga gis koo xam ne lu ne mën na koo xam waaye du mën a def dara moo tax loolu ay misaal yu am solo yoo xam ne dañ koy seddoo ci bésu tey bi dégg nga mu aju ci yitte te bañ koo guddal lool mu doon ay mbind rek yoo xam ne dañ koy jëfandikoo mu doon yóbbal ci màggal gi bu ko defee ñu wàcce kàddu gi jox euh, sun euh, sëriñ bi sëñ maam Cheikh moom it mu am lu mu ci taaliq commenté ko ak euh, lim ciy indi rek amatan ñu jëriñoo ko jërë ngeen jëf ci déglu gi ziyaara bi ci Cheikh Mahmoudul Muntaqa mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon murid yépp di ci teg sunu sëriñ sunu wasila Cheikh Mahmoudul Murtala ibnu sëriñ Saliou di ci teg sunu waajur sëriñ Amdi Fall ibnu sëriñ Modu Mbend xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu mbokki taalibe yépp di ñaanal mboolem njabootu sëriñ Touba gi ak mbokki taalibe bi yëpp lépp lu ñu def ci màggal gi ci ay jaamu yàlla ci lu baax sunu borom nangu ko waaye di ñaanalit ñi nga xam ne dañoo amoon yéene ngir teewe bis bii doon ñëw yàlla moom leen ci yoon wi yàlla yërëm leen jéggal leen tàbbal leen aljana barke sëriñ Touba xam naa liñ ciy wax moom dana néew ndax li li ci mata wax lépp sëriñ Bass wax na ko ndax yitte moom mooy li nga xam ne nii nit bu ko amee mën naa àgg fu kawe waaye nit bu ñàkkee yitte mën naa wàcc fu suufe lool ndax yitte mooy li nekk ci yow di la xirtal ngay def li ngay def mën naa kawe lool nag ba yëkkati la nga àgg fu kawe ci sunu borom àgg fu kawe ci àdduna waaye yitte bu suufee it mën na laa wàcce ba nga ñàkk valeur lool ci sa diggante ak sa boroom waaye ci àdduna kon yitte mën naa kawe mën naa suufe waaye fan lay nekk ci nit yitte ci xol lay nekk yitte palaasam mooy xol xol nag yàlla moo ko xam nit mën nay def loo xam ne nii gëmu ko nit mën nay def loo xam ne it lu gëm la waaye xol moom yàlla moo ko mën a àtte kon yitte palaasam mooy xol li li nekk ci xolam nag bu ko dee jëf ci cëram nu jëf ji gën a kawe rek noonu la yitteem di gën a kawe waaye sa jëf nu mu gën a néewee ci jëf ju baax noonu la si yitte di gën a néewee bu ñu xoolee ci alxuraanul karim sunu boroom dafay soññee ci yitte ju kawe bari na ay aaya ayat alquraan yoo xam ne nii sunu boroom da ciy soññe ci yitte ju kawe bokk na ci yàlla li wax ne minal muminina rijalun sadaqu ma haadulla alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasiru ma baddalu tabdilan am na ci nit ñu baax ñi ñu nga xam ne nii lañu ñu waxanteeg seen digganteeg seen boroom ci gëm ak jëf dañ ko matal ba mat sëkk am na ñoo xam ne nag ci ñooñu danañ teel a dem am na ñu fiy des di mottali mission bi sunu boroom wax ne ba tey am na ci nit ñi ñoo xam ne seen yitte seen diggante ak seen boroom kawe na goo xam ne dara mënu koo yàq alali àdduna mënu ko mënu koo dindi mu ne yu yusabbihu lahu fiha bil qudu wal asal rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqaami salaatu wa itaai am na ci nit ñi ñoo xam ne ni alalu àdduna du leen fàbbi mukk ba yitte jiñ am seen diggante seen boroom ci jaamu yàlla ñu sàggane ko maanaam wut alalu àdduna du leen jaral ñu sànk ak jaamu yàlla wala mu tere leen def lu baax kon loolu sunu boroom day wax ne kon nit yitte nekkee ci moom yitte digganteem ak boroomam dana tax mu fonk lu baax di ko xeeñtu di ci nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey dafay soññ ci yitte ju kawe mu ne képp koo xam ne sax dangaa yittee def lu baax yitte am yéene def lu baax te am gàllankoor ba defoo ko nee na yitte ja nga am ca def lu baax ak yéene ja yàlla dañ la ci bindal tuyaaba maanaam ki jug bëgg a def lu baax far am gàllankoor même bu ko deful yàlla dana ko bindal tuyaaba bindal ko aw yiw ci yitte jooju nga xam ne am na ko eh, li tax nag yitte di nekk ci nit ki mooy am na ci mbir yoo xam ne ni nit da ko war a jox yitte maanaam am na ay mbir yoo xam ne nii nit bu ko joxe yitte day tax mu raw ay moroomam eh, yàlla sunu borom dafa soññee ne na ngeen di rawante ci lu baax fastabiqul xayraat ay na aynama takunu la bikumullahu jamian na ngeen di rawante ci lu baax nit bu rawanteeg yow na fekk ne bu dee lu baax la na nga fexe bu mu la ko gën a bëgg sa moroom bu mu la gën a bëgg lu baax lu baax lu nekk rek fexe ko gën ko ko bëgg gën cee rawanteeg moom bu dee ab safaan nag bu ci rawante ndax ab safaan moom day sànk nit kawe yitte ju kawe nag mën nañ koo làmb ci ay anam yu bare bari yoo xam ne nit da cee war kawe yitte lu mel ne benn bu ñu mooy sàkku xam-xam nit buy sàkku xam-xam yitteem daa war a kawe gisam sori mooy tax mu amoon a àgg foo kawe ci xam-xam waaye nit buy jàng wala muy wut mecc jàng mecc wala jàng men njàng mu mën a doon rek bu yitteem kawe wut la muy jàng du ca mën a àgg fu kawe faw yitteem day mën a kawe njàng mi mu mën cee àgg fu sori lool kon yitte ju kawe mooy tax nit am xam-xam nit bu yitteem kawewut buy sàkku xam-xam lu ko bàyyi lool la muy jàng day yomb lool ba tey yitte war naa kawe ci jaamu yàlla ak jub nit ci jaamu yàlla ak jub danga cee war a am yitte ju kawe kawe kawe mooy tax eh, doo nangu ku la dàq jaamu yàlla waaye doo nangu ku la gën a sax ci njub te nit bu saxee ci njub nangoo jàmm yàlla loola mooy tax mu mën a am li ñuy wax saadatu daari ni texe àdduna ak àllaaxira ba tey yitte war naa kawe nit war naa kaweel yitteem ci seet dëgg ak gëstu ko fexe ba di xool dëgg di ci tënku loolu ba tey nit warna na jox yitteem eh, lépp luy nuru jihaadu nafsi luy tax nga mën a not sa bakkan ba def taskiya sellal ko yar ko raxas ko ci jikko yu bon yi man koo duy ci jikko yu baax yi loolu nit da cee war a def da cee war a def yitteem eh, li sëriñ Basil wax léegi nag mooy nit bu jombalee boppam benn cër bi rek du ko am nit da nga jàpp da war a gëm ni lu baax jomb la lu ne fu ne mën nga fa àgg waaye boo gëmee ne am na foo xam ne mënuma fa àgg wala am na loo xam ne mënuma ko mel loolu day tax nga ñàkk yitte sëriñ Touba wax nañu ci masalikul jinaan ne ña fi suñu maam yu baax yi fi jaaroon lañ amoon buñ gëm ne ñun mënuñu ko am ndax yàllaa leen ko jagleel ci seen yitte kon yitte jañ amoon boo ko amee cër bañ amoon mën nga ko am wala tuqassis fadla rabbin xat bisi taqaddumin faqat fatajala bul jàpp ne yàlla lim am ñu baax ña ñu ñu ñu ñu mag ña la ko may te du ko may gone yi déedéet la yàlla mayoon mag ñi noonu la ko mën a may gone ji waaye fa mag ñi nekkoon ak yitte jañ amoon gone gu ko am fañ àggoon ci lu baax cër yi ñu amoon danga ko mën a am ndax kat lam ca teg mooy fa tallu xat yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laa li talli bu ñu xoolee nawet ñaari taw moo ci am taw wis-wisal ak taw boo xam ne day foor lool nee na bu ñu xoolee nawet taw wis-wisal mën naa jiitu ci nawet bi waaye loola ñoralul gàncax lay ñoral gàncax mooy taw bu bari kon jiitu taxuta gën mujj taxuta yées lii tax nit gën mooy yitte ju kawe sunu maam yu baax ya fi jaaroon ànd ak Serigne Touba. la leen may lañ amoon mooy yitte ju kawe mooy bëgg lañ lañ lañ doon wut ñu bëgg ko te mu jaral leen lu ne moo tax ñu àgg fañ àgg waaye dafa mel ne jamono jii nag sunu kalaas gii dafa mel ne dafa am leneen lu dox sunu diggante yitte ju kawe ju te mooy lan mooy bëgg àdduna gu metti àdduna moom boo ko bëggee rek day dox sa sa diggante ak yitte ju kawe sa diggante ak sa boroom kon nit war naa am yitte bu baax a baax ci lépp lu jëm ci digganteem ak boroomam am na yu baree bare yoo xam ne day tax nit ki ñàkk yitte digganteem ak boroomam te mooy bokk na ci mooy li ñuy wax xobu duniyaa bëgg àdduna nit boo bëggee àdduna bëgg àdduna nag buñ koy firi nekkul ci eh, bëgg ay kër yu baax ak oto yu jot loolu du bëgg àdduna loolu moom yàlla da koo digle waaye bëgg àdduna ci xol lay nit mën naa am alali àdduna te du sax ci xolam ah dëddu àdduna ci xol lay nekk ndax nit mën nga ko gis mu am àdduna alalu àdduna waaye du sax ci xolam mooy moo alal gi du ko moom waaye moom mooy moom alalam loolu mooy zohdu loolu mooy dëdd àdduna nit bu bëggee àdduna day tax mu ñàkk yitte nit bu ragalee dee day tax mu ñàkk yitte nit wërta ragal dee ndax dee moom boo ko ragalee mu ñëw boo ko ragalul mu ñëw kon nekk ci loo xam ne ragaloo dee fekk la ca loolu moo baax mooy nekk ci loo xam ne tey bu dee doon ñëw doo soppi jataay noonu loolu boo ci nekkee rek loolu dana yokk sa yokk sa yitte kon ñu xam ne nii Sëriñ tubaa lim ñu woo ak lim taxawale sose yoon wi mooy weesuwul yar nit ñi ci yitte ju kawe yitte ju kawe li ko yonente bi eh, wax jële ko ci sunu borom mooy rabbi asxaabaka bil himmati ci yitte ju kawe yitte ju kawe nag jeexit ji mooy day tax nga am li ñuy wax tazkiyatu nas mooy day tax nga defaroo ndax doomu aadama yàlla da ko bind ci ñaari mbir mooy yaram bi ak ruux gi te ñaar yépp am lu leen di dundal yaramu doomu aadama li tax muy dund day soxla lekk ak naan ak faju ak nelaw bu ko amul jafe am jafe-jafe waaye ruux gi ànd ak yaram bi moom it dafa am lu koy dundal te mooy jaamu yàlla sax ci jub mooy tax sa ruux mën a dund nit nag sa ruux bu dundee sa yaram dund lool lim lay jural mooy jege sunu boroom ci lan mooy dangay dem ba matuk yàlla gi ak selluk sunu borom gi day mel ne loolu dafay nekk ci yow ndax jege yàlla duñ jege yàlla ci ay jëmmu mais dañuy jege yàlla ci ay melokaan comme li yonent bi wax ne la bi laa na ngeen melokaanoo melokaanu yàlla yi mooy nit ki waxtuun daa war a roy sunu borom ci matam ci sellam ci lépp loo xam ne nii melokaan boo xam ne nekk na ci sunu borom rek nga fexe melokaan yooyu nekk ci yow kon euh, màggal gi li ko waral génnut li ñuy waxtaane mooy yitte ju kawe ulul himmati Serigne Touba yitte ju kawe ci digganteem ak boroomam bari nañu ko fi jiitu de waaye li sëriñ mun Mountakha di wax rek Serigne tuubaa ñëwul kenn ci boroomam ñëwul kenn ci yàlla Serigne Mountakha li mooy Serigne Touba xejjub sunu borom la xej ji nag moom euh, rëy na lool buñ koy firi kon sëriñ bi danoo wan yoon. bari na ñu baax ñu fi jaar lool waaye bi mu ñëwee yitte ju kawe ak lim yar taalibe yi ak lim def ci ñoom wane na yoon ne mujj taxut a yées jiitu it taxut a gën wallahu yaxtasu bi yi man yasaaw wallahu sul fadlil azim kon bu ñu ñëwee daje ci bis bu mel nii dañoo war a aajoo ñu tom jàngat sunu bopp nag nun taalibe yi xam fu nuy teg suñ tànk xam ci lan lañu sëñ bi woo lan lañu war a dund yóbbaale ko li sëñ Ahmadou Rafahi di wax ne màggal kër goo dem lawar dafa war a saf sàpp yàlla xeeñ xunn lu baax nee na buñ ko defee rek màggal am na waaye kër gu melul noonu dafa mel ne loolu du màggal te mooy lan mooy sëriñ bi lim ñu woo mooy ñu bernde te loolu am na lu wér la wa anfiqu mimma razaqakum mooy joxe ñam joxe ñam jaamu yàlla gu gën a kawe amul joxe ñam wa yut'imuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran ak jàng alquran jàng xasida nga xam ne zikr la istixfaar ak jokk ak bokk lii de mooy màggal lenn loo ci jël rek dayoom dafa kawe lool màggal génnul ñeent génnul lii nañu jàng alxuraan yàlla digle ne ñu jàng alxuraan nañu jéggalu sunu borom yàlla ko digle nañuy tudd yàlla xaside yi zikr ak istixfaar ak madxu salaatu ala nabi moo ci nekk te loolu lépp lu yàlla digle la jël bernde togg ñam joxe dayoom kawe na lool sunu borom jokkook bokk yàlla ko digle kon ñi nga xam ne nag dañoo wax ne nañ leen wax ay dalil ay tegtal ci wane ne màggal dafa am ci alxuraan la màggal liñ ciy def lépp ci biir alxuraan la nekk loo ci jël rek boo demee ci alxuraan da fekk loolu lépp ngay boole nag ñu tëdde ko ñu tëdd ko màggal kon dañuy wàcc sunu kàddu foofu rek di wax ne daal képp ko màggal si war nga fay jële loo xam ne nii ñu laa àggee ne la màggal ga noo màggale ak loo fa jële war ngaa wax ne kat am na lu ma fa jariñoo lu ma fa xam lu ma fa xamutoon gannaaw bañ ma berndeele ci sama yaram ba noppi berndeel nañ ma ci sama ruux mooy joxam nañ ma bind boo xam ne nii bu ma ko yóbbaalee di ko dund loola dana am ak jeexit gum def ci eh, sama dund ba keroog may ñëwaat dewin gannaaw nag sëriñ Basiru ak sëriñ Jili wax nañ li ci li ci ëpp solo wax nañ ko dañ ko jàllale kàddu yooyu rek ngir teg ko ci xanaa dañuy wàcce kàddu yu foofu rek xanaa di ñaanal rek sunu kilifa gi sëriñ Mourtala yàlla sunu borom yàggal ko lool mu ànd ak wér ba li muy yéenee liggéey la sëriñ Touba ak sëriñ Saliou waaye juróom mu def ko waaye tey xam ne nag mbokk yëpp sëriñ bi daara yi mi ngi ciy soññ mbokk yi daara al alxuraan yi ndoon na loo xam ne sëriñ Saliou da koo bàyyeel tey it mi ngi ciy def kem kàttana daara yi sëriñ bi. mi ngi jël ay jàngalekat yoo xam ne da leen di fay di dundal gone yi di leen faj di yeesalaat daara yi yeesalaat daara yooyu mu yeesal yaakaar naa ne bari na mbokki taalibe yoo xam ne yëgoon nañ ngaabu ni ko sëñ bi yeesale ak lañ fa def lépp jamono yi ñu toll sëriñ bi mi ngi yeesal daara yi njàpp ndal te li mu fas yéene mooy yeesal daara yëpp liggéey boobu nag mboolem taalibe yi war nañ cee dugg def ci seen kem kàttan lu waaye man ak lu waay man nga ko cee def ngir xam ne ndono lu ko Serigne Saliou bàyyi la ndono loolu nag ñun ñëpp ñoo ci war a def suñ kem kàttan ba li ci sëriñ bi bëgg mu am ko bu ko defee mu nekk suñ njariñul àdduna ak alaaxira wasalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf suñ maam Cheikh jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir. Euh, li nga xam ne tànnoon nañ ko muy himma dafa mel ni leer na bu baax a baax ci. bokki taalibe yi bu baax ndax su ma koy misaal dafa mel ne sëñ Bachir dafa fàkk teg rang-rang sëñ maam Cheikh ñëw teg guddoron kon nag jaar ci jàll rek moo ci des ndax sëñ maam sëñ Mahamadul Bachir xamal nañu nu du jàmbaare rek di lijjanti sa mbiri àddina képp waaye nag itte bala ñu ko tuddee yitte donte ci la bokk waaye dangay ngay njëkkee lii nga xam ne mooy li nu war te mooy diine euh, diine islaam fexe xam suñu diine fexe xam suñu taalibe suñ maam Cheikh wax dëgg yàlla ñëw wax ñu ite mooy lan waaw wax ñu fi muy ne fi muy nekk euh, wax ñu niñ koy defee ba mën a ba buñ ci jaaree liñ bëgg suñu àdduna ak àllaaxira mën koo am suñ Bachir wax na ci itte yu bari ci diggante euh, li tabax jumaay njaareem ak raay bi nga xam ne sëñ Modou Moustapha wax nañ ne si euh, sëñ bu mag bi 5 millions yi nga xam ne moo ko njëkk a dajale nga xam ne moom la ko tubaab bi laajoon caution bi fi sëñ bi jógee rek xaalis boobu dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko nax saayal ngir gàllankoor sëñ Modou Moustapha dañ ko waxaat da wutaat yeneen 5 millions mu wutaat yeneen cinq millions indi ko loolu lépp da ngay gis ni itte la ñu ñëw ñu tegal ko ci liggéey bi ni kon dig diirub ñaari at lay doon soo ko fi defut da ngay perte euh, junj na ko yu baree baree bare ñu ko topp Cheikh Mamadou faadal gis nga li mu wax te noonu nga ko mënoon a toppee ba ci Cheikh Salih mi nga xam ni moo fi mujj nga xam ni itteem ku nekk xam na ni fi mu àgg euh, lu kawe na kawe goo xam ne tey jii waxuma la euh, muridi waaye jullit yëpp teg nañ ci seen bët. kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di santaat bu baax a baax <laughs> jëwrin sëñ Mahamadou Bachir Faye ak maam Cheikh Fall ñu ngi leen di sant yéen it di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi lool te wér ba yan yi nga xam ni sëriñ bi yan na leen ko ngeen ngir ngeen jàppale ko ci liggéey bi ni nga ko waxee muy liggéey bi nga xam ni moom la ko sëriñ yu bàyyee muy ndonoom suñ boroom defal leen ci lu kawe seen njort ba fi mu ko bëgg mu àgg ngeen àggale ko fa ci barkeb sëriñ Touba. kon ñu ngi wàcce foofu kàddu yi di soñ soññ ñi nga xam ne ñoo war a jàng di kuréel Nahju su ko defee ñu jege si di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon bu ko defee dafa am benn information bu ñu bëgg a jàllale mais information bu am solo ci kër sëriñ bi muy benn projet boo xam dañ ko fay taxawal tuddee ko yeesal ku ko war a jàllale moo di Ndiaye auzubillah bismillah inna waliyallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli aslahta xaali bila irtixaali bihdi ayaali bila bukaa'i saddid lisaani nawwir janaani safi amaani wazid baraayi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhum ñoo ngi nuyu mbokki taalibi yépp di jiital suñu yoo bi suñu yaakaar tey ëllëg cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ibnu Serigne Saliou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li nga xamante ne bëgg na koo liggéeyal maamu ju baax ji cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha suñu borom defal ko lu kawe njot waaye tamit li nga xamante ne bëgg na koo liggéeyal wuyu jotuma Serigne Saliou Mbacke suñu borom defal ko si lu kawe njot te ñu ànd ko moom tey nag. xam naa ne ñi fi jógee léegi muy conférence bi am na yu bari yoo xam ne tënk nañ ko loo xamante ni moo jot lii nga xamante ni moom la ñuy tuddee projet yeesal daara Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacke ibnu Serigne Saliou doon liggéey boo xam ne ay mbokk taalibe ñoo toog xalaat ko ñëw jébbal ko sëriñ bi am ci ndigalam dox ci ni nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee ba nga xamante ni loolu moo ñu yóbbu woon cees avant màggal gi ngir ñu mën a taxawal liggéey bi foofu lancé ko officiellement yeesal nag suñ sëñ bi Fall sànq wax na ko que ni sëriñ bi dafa nekk di yeesal daara yi kon day mel ni rek dañuy fàttali euh, que liggéey sëñ Tuubaa moom dara du si hasard ndax sëriñ bi ni nga xamante ni mu ngi koy yeesalee daara yi ak euh, contexte bi nga xamante ne fa la yeesal muy projet bi juddoo daanaka du simple coïncidence li ñu ci war a xam nag mooy euh, dafa jot maanaam ñu am loo xamante ni tey jii nii ci biir kër gi mooy porte liggéeyu sëriñ bi ci daara yi ndax comme ni ko sëñ bi Fall waxee sànq rek. sëñ bi dafa am ndono loo xam ne dafa rëy lool ku xam sëriñ Saliou Mbacké xam ne léppam daa rëy la te loolu nag sëriñ bi dafa wax ni sosul dara sëriñ Saliou Mbacké dafa teggi tànkam rek mu teg kon ci yoon woowu lañ nekk ak moom muy yeesal daaree Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké moom sëriñ Saliou damay tënk nag kàddu di wax ni rek présentation moom dañ koy def si ñetti ñetti ñetti xaaj bu si njëkk mooy contexte bi contexte bi wax naa ko sànq mooy li nga xamante ni mooy jëm ci euh, yeesal gi nga xamante ni moom la sëriñ bi namm ci daaraam yépp waaye tamit yitte ji nga xamante ni mbokki taalibe kenn ku nekk si ñoom am nañ ko ci jël seen ñaq yóbbu ko ci daara yi waaye xëy na duñu am fi nga xamante ne foofu la ñuy jaar loolu moo tax ñu ne woon dañuy créer benn plateforme financière boo xamante ni dina tax mbokk taalibe bu nekk dina mën a jëfal sëriñ bi mu jaar foofu dem ci daara yi te mu doon loo xam ne lu jàppandi la te yomb lool ñu tënkoon ko nag ci ñaar téeméer ñu ne woon mbokk taalibe bu nekk day joxe ñaar téeméer weer wu nekk ñu defoon ay suñu estimation ne sëriñ bi kat jàpp nañ ne minimum war naa mën a am ñaari junni taalibe ci Sénégal muy 2000 loolu boo defee 2000 taalibe bu nekk 1000 francs weer wu jot daf lay jox 2 million deux million boo ko dajalee at mi mën nga am million vingt 24 million tuuti na tuutiwul waaye am na loo xamante ne mën na koo fat lu bëree bëri bëri bëri te estimation yi sax dañ ne diggante deux million ba cinq million la weer wu nekk nga xamante ne ñoo ngi jàpp ni at bi mën nañ am entre 24 ba 60 million ci loo xamante ne war nañ ko mën a jébbal sëriñ bi ànd koog moom ci liggéeyu daara yi li nga xamante ne nag mooy modèle projet bi sànq jëriñu ñu ngi koy wax sànq que ni sëriñ bi moom euh, sëriñ Touba ku ne xam ne ne bés bii tey lépp ko may yëpp mooy yitte ju kawe rek ndax keroog ba nga xamante ne ñu ngi koy àndil grade bi bi nga koy àndil fenn da euh, bayti Daaru Xuddoos gis ngeen lu tontu sallallahu alayhi wa ba liggéey ba ba yoonu géej gi taxaw kon amul lenn loo xamante ni ab war na ko mën a jommalee boppam. modèle bi nga xam ne moom lañ teg ci sëñ Touba lañ koy inspiré muy modèle de financement participatif sëñ bi wax na fi sànq ni euh, ni nga xamante ni moom la Cheikh Mouhamadul Moustapha Al Karim taxawoo liggéeyu raay bi ba nga xamante ni murid boole ngi seen alal def ko benn ñu mën a taxawal raay bi nga xamante ni mooy transporter euh, matériaux de construction jumaay Touba waaye tamit li ko jiitu. diggante cent 1916 jàpp 1918 ba xa ba xëy na sax 1924 sëriñ bi gën a xam na ni moo joxe woon ndigal ci euh, tabaxu liggéeyu euh, jumaay jumaay njaarim ji nga xamante ne boobu boo xoolee sëriñ bi modèle de financement participatif bi nga xamante ne moom lañ def 1000 francs te Touba Ca Kanam di ko utiliser nga xamante ne moom mi nga dajale ay milliards ndax boobu moo gën a large murit yëpp la moom la sëriñ bi utiliser woon ba nga xamante ne dajal nañ sa xaalis bu bëri loolu moo tax ñu tabax euh, jumaay njaareem bi noonee képp la murid di doxee loolu moo indi te jii Masaalikul Jinaan mooy jur Tuuba sa kanam te mooy jur li nga xamante ne mooy yeesal ñuy wax mbokk taalibe yi rek ni yeesal moom yeesal daaree Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké ibnu Serigne Saliou la waaye projet bi li ci ëpp solo mooy da dafa nekk projet fédérateur projet boo xamante ni tey jii nii xeebuñ yéemuñ 1000 francs lañ wax waaye xeebuñ yéemul mbokki taalibe bi fu mu mën a nekk ci àdduna bi ci Sénégal euh, lu mu mën a am mën na koo tàbbal ci liggéey yeesal bi ndax am nañ ay plateforme de mobile money yoo xam ne disponible na muy Wave di Orange Money ak Free Money xëy na sax après dina am compte bancaire boo xamante ni dina disponible waaye lépp buñ ci yeggee ñu ngi ciy liggéey dinañ ko partager ak mbokki taalibe yi kon ci gàttal loolu projet yeesal vision bi nag vision bu sori la muy gis-gis boo xamante ni li ñu ko bëgg a def dëggantaan mooy plateforme financière bu forte et engagée dans les daara de Cheikh Mouhamadou Mourtada maanaam sëriñ bi lépp loo xamante ni du ko yittewoo si daara yi rek yeesal mooy doon bunt bi maanaam financièrement yeesal mooy assurer lépp nga xamante ni loolu mooy suñu suñu suñu suñu gis-gis ñu tënk nag liggéey bi si ñett axe li ñuy tuddee axe stratégique maanaam liggéey moom boo taxawalee projet boo amee gis-gis daa am foo xamante ne foofu nga war a jaar léegi bu ñu nee axe 1 bi mooy rénovation des daara mooy li sëriñ bi nekk di def nga xamante ni day rénover daara yëpp loolu dañ si ànd ak moom construction yeeg yu demee noonu bu ñu fa jógee axe 2 bi nekk couverture permanente des besoins des daara lépp loo xamante ni daara yi da koy soxla sur le plan financier jur gi sànq mi nga doon wax wàllum li ñuy fay. oustaz yi sur le plan sanitaire maanaam wér-gu-yaram sur le plan vestimentaire ay colk ak leen leen leen ak leen ak dund gi ci boppam sur le plan alimentaire lépp loo xamante ni sëñ bi da koy yittewoo foofu rek ndongo yi dañ koy yittewoo yeesal euh, taxawu sëriñ bi si loolu ba mu mat sëkk leen li ci des nag loolu moo gën a nekk à long terme mooy li nga xamante ni mooy initier et financer des projet générateur de revenus nga xamante ni dañuy créer benn chaine boo xamante ni rek dañu mën a créer entreprise ngir mbokk taalibe yi mën mën si liggéey wala ndongo yi mën si liggéey incha allahu rabbi kon ñoo ngi wàcce kàddu yi foofu di santaat yàlla bu baax di santaat Serigne Touba sant Serigne Saliou Mbacke sant Cheikh Mouhamadou Moutada Mbacke ci ndigal li nga xamante ni jox nañu ko ngir ñu doxal projet bi nga xamante ni mooy yeesal damay wax ni buntu liggéey Serigne Touba moom moo ubbeeku waat rek te mbokki taalibe bi yëpp. buñ ci jàppee taxaw si ni nga xamante moom lañ ci taxawee euh, weer wu jot ñu tàbbal 1000 francs ci Wave yi ak Orange Money ak Free Money euh, jàpp naa ne fii ak ay at yu néew war nañ mën dajale lu toll ni milliard andil ko sëriñ bi mu def ko ci daara yi